yaay sa gugante yenime nun bexe yaa gaagala yambiyame ndam na roog fa seexu tijaan waa di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen suñu mbokku internet yi ah tey nag ñu indil leen émission bu bees tàq ñu koy wax kër champion yi waaye di ci woo champion yi nekk ci Sénégal yëpp parce que émission la boo xamante ne nii wax dëgg yàlla ah bu ñu am yaakaar la te fas ne nañ cee def loo xamante ne nii bariwul luñ koy gis fu ci champion nekk nag ci Sénégal fii dinañ la fekk si boo ñu soxlaa dinañ la fekk si foo nee ñu fekk la fa dem ak yow interview feeñal li nga xamante ne nii nëbbu woon na ci yow. ah tey nag ñu jóg ñëw seet si euh, grand champion muy Diap Senghor mu nekk nit koo xamante ne nii wax dëgg yàlla. bay na waaram ci wàllu làmb bëre na ba carrière jeex taxul mu bàyyi bëre mu walbati bu nekati biir làmb ji tekki ngemb li mais di tëgg làmb nekk promoteur tey nag moom la waa étoile jamono ñëw seet si fii wax fas yéene def ak moom waxtaan boo xamante ne nii am na solo jàpp maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw nuyu naa bu baax a baax di la ziar di nuyu waa étoile jamono eh, comme ni ma koy waxee rek étoile bi xew si jamono. waa di wax abonné yi ñu yokk. yokk abonné yi rek. waa yokk abonné yi ndax étoile jamono moom macha allah ñëpp koy suivre kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu yokk abonné yi du nuyu senegal yëpp di nuyu Joal Fadiouth bi nga xam ne tey fii lañ dëkk ñu ngi siyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu kilifa yi fi nekk di nuyu madam le maire borom dëkk bi di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi si dëkk bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar. am na solo loolu leer na tey nag balaa ñoo xuus ci wàllu promoteur gi. xam naa ñoo dalal champion bu toll nii ñëw rek di waxtaan ak moom ci affaire promoteur dinañ wax moom ci ay jaar-jaaru làmbam jàpp làmb ji sa kër nga ko fekk wala yow yaa génn ci mbedd mi doole ñëw def sa bopp mbër wala jàpp dafa doonu làmb. dama ko fekk suma kër sama maam bi doon wax jaabi ndeesaan kooku kooku da doon bëre di daan di daan di daan daan ba ñu ne ko lu tax daan mooy gàllaaj ji nga takk mu tekki gàllaaj ji si digg géew gi taal leen lakk leen continuer di daan gars yi xam ne du woon day daan kese mais man en tant que jaab defuma carrière si làmb ji ndax euh, moment bi may dugg si làmb euh, loolu nag histoire bu gudd la moment bi may dugg si làmb di def raw gaadu sama premier année bu ma seggoon nag nit pour ma daan ko comme ay seconde dama dama dafa da doon yomb si man mm-hmm. mais bi ñu commencé di dem di dem di dem làmb bi dem ba man bu ma seggee ak damay gëlëm damay gërëm sama waajur bu góor nag amoon xam-xamu làmb te lii may wax damay bañ a tudd tur fii am na champion bu mag bu nekk si commune bi bu mosaan signé combat bokk na suñu kër da doon njëkk a ñëw doon waxtaan ak suma pap suma pap xamoon lu bëri si làmb mais jamono booba dafa am paa bi lu ñu doon woroo si ay toujours si ay kàddu moo taxoon bu ma waree bëre ji daf ma naan doo doo bu yeboo nga dem nga final doo jël ba am na bés may finalu fii ak Jean Paul damay nettali benn anecdote mm-hmm. ma final fii ak Jean Paul si bayal bi damay génn ker gi paa bi nag li séeréer di wax akolof akolof damay génn njëkkee suma mag bi ñuy wax Malick mu ngi ginnaaw paa bi tëbb suma tànk ñu dem keroog laa daan Jean a avant muy ñuy def cinq secondes daan naa Jean Paul mhm. mais dama ko daan bàyyi bañ ko bàyyi xëy na am na ñuy suivre émission bi dinañ xam li may wax dama ko daan bañ ko bàyyi aw arbitre bi bàyyi action continue Jean Paul mu jëm a daanaat bi ñu ñib see Malick wax paa bi waa jaab daan na Jean Paul ba ñëpp jóg taxaw muy continuer action bi arbitre bi bàyyi ko sam ne ko du ma xëy jël drapeau gis nga bi ngeen di génn ma et maata bi maati bu tànkam bi donc yooyu action yu bëree bëri ak yeneen yoo xam ne dundu kii euh, affaire famille la. Mm-hmm. dundu famille la xam nga kër bu amee wujj aw ñaareel day compliqué. day compliqué dundu famille. daanaka mun naa ne moom a tere dem doon mbër. man ñëw gars yi ñëw nañ fii drapeau chef de l'État à quatre vingt seize. Mm-hmm. ñu fekk ñu fee ginnaaw stade ñuy entraîné. ñoom yaali jaxate yalla na ko yàlla yërëm ak paaf benn paa waa faaj bu ñuy paa fara aaw dañu seetaan rek ñu ne booy bee day dem kee moom kee moom jaww sélectionné dañ koy yóbbu chef de l'État c'était en quatre-vingt-seize mm-hmm. drap lam bi may wax moom la Yékini ki Zallo di daan Yékini final drap chef de l'État à Fatick keroog man maa gënoon tuuti si si ñi ñu sélectionné région de Thiès man la woon Sédar xam nga Sédar jamono boobu sélection kenn du ko wéran man la woon Sédar Lamine Fall la ñu sélectionné woon si léger mm-hmm. ba ñu demee am na ñaari mbër yu duubalees indi maa daan kenn première daan kekk deuxième tour yaa ngi dégg woy bi ñuy wax jaab Senghor mu ne njom ne jaa kee pirale axo ah yeen njom ne maat xam nga fu woy bi jóge maye de moo ko boobu maye de moo ko njëkk mm. woy xam nga bi ñuy sélectionné fii di koy di ñu yóbbu mm. boobu jamono day ñoom jëm si yàlla kuli gaa yu bëri euh, bi ñu sélectionné yob dafa am si suñ génération ñu doon wax ne jaab warul dem mm. jaab lan moo tax ñu ñu jël ñu jël ko noonu sans sans kii comme ni gars yi dafa nga de sélection ñaar dañuy bëri mm-hmm. mais dañ ñëw rek gis suma combat ñu jël ma la defi mu am ñu doon waa jaab xel du warul dem mm-hmm. moo war na jaab seengo mu ne njom ne jaakee mu njom ne mu ne gars yi ne bëre bi toll noonu lu tax ñu yóbbu ko chef de l'état mm-hmm. mu ne jaab seengo ñoom njom ne jaakee mu ne piraleye axooyee njom no maat njom no maat mooy drapeau chef de ta woy bi ma daba ko njëkk a woy naam de maye deb moo ko woyoon foofu la woyaate jom no jege jegee cere mu ne ndeɓaƴ ba fapooxi fur bo is aale mbuud lam boobu la ma fa def avant may ñi egg demi final mhm. dama ko bëre roog mbala bu écurie Fass mhm. moo may génne demi final keroog Sédar ak Lamine Fall ñoom lañ bëre bëre demi final man ak roog mbala bu écurie école de lutte kii écurie Fass noonu la deme woon roog mbala génne ma Sédar génne Lamine Fall keroog Lamine Fall sa guddi gi yëpp da ko jooy ndax comme li ñu bokk même kon ñu dëkk Faaju Sédar dëkk Joal Sédar daan ko. Mhm. léegi nag Sédar ak Mbour Mbalax ñoo defoon finaal boobu. keroog ba ñuy ñib si Sédar télé ak cran yu ma temps yu moo xewoon. Mhm. moom la indaare. monsieur le maire Poli Ndong fa lañ njëkk a miinante man ak moom. mu yóbbu ñu fi ñëw. keroog waaw. loolu leer na am na solo nettali nga fi histoire boo xamante ne nii macha allah am na importance trop kon tey loo mën a wax ñi nga xamante ne nii ba léegi gëmuñ ñi ni. làmb am na affaire mystique ndax dañ jàpp tey làmb boo amee doole rek entraîné ba woo koŋ boo dëggalee sa bopp war nga ci mën a génne kon yow bokk nga ci ñi mbër yi nga xamante ni jàpp nga ni mystique moom moo leen teree def carrière ci làmb man man moment bi mu ñuy nekk ay xale génération ñoom Paul ñoom aw na génn bu doon suma papa na ma kon kenn waxatu ko mais moo wu da am waajur bu xam làmb ba pare moo lay ne doo am yaa ngi dégg kon mystique dafa am te gis nga Paul yi après kiram lañ jëm Paul yi Paul yi dafa amoon ginnaaw Paul yi sama papam suma maam la mm-hmm. Magandong papam de ko jàppale woon yemul woon si papam jàppale ko <laughs> yemul woon si papam jàppale ko Paul yi même waa Mbour yoo xam nañ ko doon jàppale waaye Seekuta ñoom dem si yàlla Paul Dieng mm. boobu nga xam ñoom ay maara rek la ñu xam mm. Paul yi dafa amoon chance boobu Paul yi waa Juwaalo dañ ko bëggoon di ko jàppale moom moo amoon chance boo xam ne ñun suñu génération presque kenn amu ko woon kon dama lay pour dëggalaat la de mystique waxuma la si làmb kese mystique dafa am dafa dafa bokk am na ñoo xam dafa bokk si dundu doomu aadama xam nga lu tax dama jógee mar benn jour di ñib si maay dajeeg benn paa si benn gaal ñaari paa yi ñooy waxtaan. Mm-hmm. benn paa bi ne ko euh, boo amee sa kër am say xale te taxawoo leen nit yee xàll. benn paa bi ne ko lu tax nga ko mu ne ko ñun ay séeréer lañ te séeréer bëggul ku ko jiitu. seere boo ko jiitoo te taxaw ñagoo li nga yoon ñu yàqal pour woon la ne rek mystique am na boo nekkee si yoon te yoon ba nga ne ñagoo ko gars yi yàqal la ko si mystique mystique kese am ku ko dundul nag mbala ku mu dalul munoo ko xam mais mystique lu am la mbër lu mu am am am doole bu amul mystique bu ko gunge du dem te su gars yi jël ji nangu jëlam kon mystique dafa bokk si li nga xam ne day gunge day gunge mbër waxuma gunge rek mbër day gunge ni ñu sommes des africains ñu sommes des sénégalais pare ñun ay séeréer lañ kon xam nañ lan mooy mystique bokk dafa bokk. loolu leer na am na solo ba tey ñu nekk ak jàpp rek mu nekk un grand champion mais jàpp bëri nga démb ba tey génnoo làmb ji yaa ngi toog di seetaan làmbi démb ak lambi tey dafa mel ni am na différence bu baax a a baax. làmbu démb loo daan gis démb te gisoo ko tey ak loo gis tey te gisoo ko woon démb. ak a bëri ñëwal ñu gis. maa ngi nettali benn anecdote fekk euh, ñu am fu ñu voyagé di ñëpp si. may nettali benn grand ma ne ko yaa ngi fàttaliku làmb bi Yékini di ñëw ndangaan te yor si yéeg si si kii bi mooy kii. minicar bi mm. te ñëw minicar bi ñëw ba si baas bi tiim làmb ji Yékini yurundu làmb ji nii. buuba kaaraan yem si biir di ko naan ne fóot wii di fóot wii di. dëgg la yooyu mbër yi di say te yaxya wàccagul. dëgg la entre mbër yooyu. dëgg la entre ni ñoom maan bi ngeen ñaan. buuba kaaraan géew gu mos a dugg day provoqué gars yi ba làmb ji. wallaay maam caf ko boobu amoon si làmb mbër bu ngeen bu woon uti làmb ja mm-hmm. caf ko boobu amatul caf ko da doon neex loolu kese da doon jaar soo ko gisee nga ne mm-hmm. ngay gis mbër sol équipement dëgg dugg ba si làmb doo dégg doo xam ne sax mbër bu aay moo dugg te mbër bu aay bu mosaan jógee këram di uti làmb yuuxu yi ngay dégg yuuxu yi muy ñëw nga xam ne am na champion buy ñëw mm-hmm. dëgg la mbër yi buñ dugaatee si géew yi dañuy provoqué wante kii naan la maalam ñuy ren di wante di maanaam yor safaa di xaaju mais léegi da gis ay champion yoo xam ne par exemple làmbu ndangaan di fa ni ay champion ni ñu fa nekk. Hmm. mais da gis ni làmb di lewet ni mbër yi di te cafte boobu moo amatul si làmb te loolu boo moo nekkoon làmb. Hmm. moo nekkoon xoromu làmb ñoom séddar bu ñu mosaan dugg si làmb sa xol day sedd bu Cheikhou Diène yàlla na ko yàlla yërëm Cheikhou Diène bu mosaan dugg si làmb mbër yi dootuñu am jàmm. indaale caabi indaale caabi bi naan leen nii ma ko xam nga yooyu. Hmm, xamoon yooyu. amatul. dëgg la dëgg mën nañ bëre mais xorom yooyu ak fitna yooyu amatul fitna yooyu mooy làmb kon làmb demb ak làmb tey ute na lu bëree bëree bëree bëree bëri maa ngi fàttaliku benn làmb bu amoon collège mbër yëpp dugg xam nga Yaxya fu mu jóg fu mu jaar si kaw miir ba gars yi dañu jékki gëstu gis ko mu taxaw si kaw miir làmb bi di toj ñi nekk si biir yàkkamti Yaxya wàcc si ñoom yaa amoon di say à quatre-vingt à quatre vingt dix ma dolli la ci bayaalu sangoone fii wax nay dugg si keroog mi ngi taxaw si kaw miir bi nii jaarul sax ci porte ci kaw miir bi la taxaw di def ay déeba déebam Malick Ngéeña ndam si yàlla si yal na ko yàlla yërëm ñëw ba fi mu jàkkaarloog moom sukk lu yëkki ni ñaan mu ni amiin lu yëkki ni ñaan mu ni amiin pare nag ni ko waaj sil ma pare géew bi mel ni maara day taali <laughs> yooyu moom gisatuñu ko ci mbir yi léegi quoi waaw que feem yooyu dafa bokkoon ci li nga xamante ni ah. day day day day day woo amateur quoi parce que boo xamoon ni diw day ñëw ci làmb ji tey rek boo añee rek ngay dem mais léegi làmb yi da ngeen koy guddeel ba pare te du am mbër mbaa bu amee mbëri du neex. lan lan lan lan moom moo andi lan moo dindi loolu cafka boobu. yéen yéen a jàngalul ñi nga xamante nii ñoo toppoon seen ginnaaw. feem yooyu wala booy yi ñoom ñoo ñëw jël seen yoonu bopp. non booy yi ñoo ñëw jël seen yoonu bopp déjà booy yi comme li may wax léegi booy yi déjà bu ñu ngemboo. Mhm. di dem si làmb ñu te ñoom am na si ñoo xam ne seetaan nañ làmb dem tuuti seetaan nañ champion yi bu ñu ngemb woon bay dem si làmb ni ñu daan mel salte tak sol ay drapeau mm-hmm. ay rabal ak ne mais da ngay gis mbër sol kilo xam sol mayo mm-hmm. caf ko mbër bi foofu day deñ beneen bi mooy li may waxaat gis nga mbër mbër na bi dañee mm-hmm. mbër nekkatu fa gis nga mbër mu mu tekkee ngemb bi boo ko fekkee mu toog day yaru mais mbër boo xasee ba takk ngemb bi dafa war a soppeeku dafa war nekk beneen nit dafa war a beneen fitna. Mhm. léegi nag loolu moo amatul. tey ñi si xawoon tane mooy ñun Doudou Sané yi nga xam génn nañ làmb kii. Mhm. ñoom Doudou Sané ñoo doon dugg si làmb sax di ko yëngal. Mhm. xoolal yooyu amat xoolal gars yi léegi. par exemple euh, ko ko tey ku mel ni tey damay daw de passage comme ngañ seen ma nuyu ko. xam ngañ bu gënoon yox safara boo xam dey provoqué di kii. mais ngañ dey wër day kii nii rek. kon kon caf kër kii yooyu fitna yu njëkk yooyu. fitna yu njëkk yooyu. moom la booy dindi dafa manqué. problème mu fit la wala lan la. noo du fit am nañu am nañu am fit sax mais maanaam dañuy xaw a kii si làmb dañuy yaru ba mu rab si. si biir complexe xaw ma complexe sax mais dañuy yaru trop si biir géew mais boo xoolee mbër yu njëkk exemple bi ma lay jox mooy euh, Boubacarane bu dugal si làmb day ñëw ba sa wet provoqué la. Mhm. dem provoqué kale provoqué su ko defee géew gis di saxaar. dëgg ñoom jaan ji dem si yàlla bi. maamalaay ñoom maamal amin. Mhm. buñ dugaan si géew géew gi sedd. mais léegi géew day sedd guy. léegi nag loolu dem na ba euh, ñi nga xam ne te ñu amoon a de seetaan lam ñu am nañu bëri seetaanatuñu làmb ndax liñ doon gis si làmb ni làmb doon neexee mm-hmm. di ambiance bi doon am si làmb wax dëggum yàlla wàññeeku na bu baax a baax a baax wàññeeku na bu baax waaw loolu moom si si booy yi la tey booy yi tey ñoo ëpp chance ndax tey alal bi tey la gën a bëri mm-hmm. tey mbëru tey da ngay gis koo xam ne dañ lay jël en charge fooy dem oto yaa ngi taxaw ne gaa yi njëkk ya dañ doon dox pour dem dëkkak ak dëkk te loolu ñun dund nañ ko gaa yi ñoom laaw ñoom kuus ñoom sew jeen gaa yi dund nañ ko hmm. Yékini dund na lool hmm. jóge si dëkk dox pour dem dëkk pour bëre ji ñoo duñ na kon booy ñoo gën a neexle waaye tey la seen làmb seen làmb gën a kii seen làmb gën a naxari waaw léegi beneen bi mooy dama koy wax toujours hmm. CNG dafa am lu bëri lu ñuy saboté si làmb xam nga làmb buñ koy wax culture baa tax cosaan bi suñ demee ba làmb boo xoolee tey par exemple euh, ñaari mbër sëgg ñaari ñaari cinq minutes prolongation trois minutes muy treize minutes ñaari cinq minutes ñaari mbër buñ kii ñu jox kenn ki avertissement dañu war a taxaw di buuxante ndax damay gérer sama cinq minutes dañuy buuxante ma gérer gérer waat sama cinq minutes temps bi jeex ñu yëkkati sa loxo loolu bokk na. mais est-ce que loolu bu amul amateur yi dinañ gaaw a génn ci làmb ji. ndax yow mën nga tëgg làmb tey am ay soixante nangam litre ñu ñëw. waaw ñaar ñooñu ñëpp boo leen defal ku nekk vingt minutes. waaw est-ce que bu booba du ñu fanaan ci biir. waaw yi guddee yi léegi tamit dem na ba ñu bëri ñoo xamante ni bàyyi nañ làmb. Mhm. làmb yi guddee tax ñoom ñoo tax ñu bàyyi làmb. waaw waaw léegi tamit bu CNG ñëwee andil leen yéen li ngeen andil mbëri li ñu bëgg ngeen taxaw di seetaanante parce que am na mbir yoo xamante ne nii moom buñ bëggul nga daan leen duñu doo leen daan buñ bëggul a bëreeg yow duñu mais ñooñ tamit du ñuy bàyyi xel amateurs yi te amateurs yi tamit bu ñu sañoon dañuy ñëw après timis vingt et une heures vingt deux heures lamb bi tax si ñibbi mais da ngay jógee lamb pour nga reer sax problème la ndax yaa ngi fay nangam loolu it nga foog ni du problème. xam nga bu njëkk da nga doon seetaan bëre ba gis bëre bu neex. Mhm. ay door tànk gisatuma ko si lamb. ay nooju rarement. nooju moom amatul. ah gisatuma ko nga doon gis ni jël tànk ni kon naan ko tap yooyu si façon yooyu. Mhm. gisatuñu ko euh, xam nga tey par exemple bu dee dañ ñu boole ñaari ponkal mu nekk lamb calcul ndax làmb calcul la léegi man naa fexe ba buux la nga génn am na ñoo am ñëwuñu pour daan la dañuy ñëw pour la nga génn géew gi soo génnee géew gi ñu dellu si taxaw gérer gérer temps bi wax loolu làmb neexatul làmb dañ doon dañ bëre da doon am même bu fekkee dañuy def temps bi ñu xool beneen manière bu ñu ko defee mais mbër yi léegi indi nañ système boo am dañu lay buux nga génn ñëwuñ pour daan la de bu ñu xoolee xam ne mënuñ la daan ñu fexe buux la nga génn. yooyu yëpp bokk na si loo xam ne cafte làmb daal wàññeeku na lu bëree bëree bëri wàññeeku waaw wàññeeku na lu bëri am na solo macha allah xamaa ñi topp ci étoile jamono di leen ci tiire ay leçon yaakaar naa étoile jamono moom wër na àdduna léegi nag mbiri ndaw yi jaab jox na leen leçon wax na leen buuba 40 wax na leen maama laamin nañ daan duggee ci làmb wax na leen lan moo daan tax nit ñi di bàyyi seen yiite yëpp di dem ci làmb muy fitna bi ñu daan àndal fitna bi nag dañ ko daan teg ci yar ak teggin bu ñëwee dinañ def li ñu war a def lépp amateur yi yuuxu ndax man maa ngi fàttaliku benn làmb boo xamante ni bu mooy wër yaamu ndam si yàlla si ba bi muy jot làmb ji dafa soobu géej ndax li gaal gi di daw moom xeeb na ko oh, mu ne xaaral ma soobu géej ci gën a gaaw gaal merci waaye yooyu nag moom moo daan dundal amateur ba amateur bu ñee làmb am na rek lu mu jàppoon daf koy bàyyi dem seetaani lam kon nag yéen ñi ci nekk ah yéen di si jël seen wërsëg fexe leen na sàmm li nga xamante ni moom la fi grand yi bàyyi woon tey nag ñu ngi ci jàpp encore ba léegi di waxtaan ak moom bu jógee ci wàllu làmb ci dañuy dugg ak moom ci wàllu promoteur bi mu doon ndax yaakaar naa instant bi ci loolu lay gën di yëngu jàpp ngeen fekkoon wal daan bari làmb trop man maa ngi rappelé Joal Fadiouth Fadiouth daan na tëgg làmb teraanga di tëgg làmb bayaalu teraanga fële mbër daan na daanoo bayaalu Fadiouth daw si bëri si teraanga wala nga daanoo teraanga daw bëri ji Fadiouth àggalee ci sa làmb foofu am na ñu ci daan jot seen wërsëg samedi ak dimanche bu nekk làmb da daan am équipe yi koñ yëpp dañ daan tëgg làmb tey nag ñoom jàpp ñëw nañ jël relève bi kenn xàmmeetul jiwaala da ngeen a mujjee puso bi mu réer seeni loxo wala lan moo indi jafe-jafe bi. ñun daanaka sax dañoo dañoo dañoo dañoo indi dañoo dundalaat tuuti ndax boo xoolee ñun ñu ngi jot làmb ji daaw daaw tëgg nañ fi ay journée ba CNG ñoo def délégation ñëw félicité ñu daaw am nañ fi neuf journée yu mag ak ñetti journée yu ndaw ay mbapat daaw te Joal Fadiouth ay ñaar ñetti làmb la doon am daaw yàlla yàlla wax dëggum yàlla indi nañ fa ay journée yu mag si suñu ay pexeek yooyu ba macha allah daal yàmb làmbu daaw bu mais ren dañ ko bëggoon tollante hmm. mais suñu problème mooy problème mu arène nga xam ne ñu ngi koy wax fu nekk di ko jooy fu nekk mooy suñu problème principal boo xam ne man mi en tant que président comité de lutte bu Joal Fadiouth hmm. ñi ma contacter pour tëgg si fii mot na onze Habib Ndiaye am nañu ko contacter Ismaïla Keek am nañu ko contacter ñoo ñëpp dañu bëggoon tëgg si ay làmb fii commune Joal Fadiouth mais malheureusement stade moo fi ne stade stade ñi fa teg yëpp xam nañ ne doxul. Mm-hmm. ndax manque de sécurité bi. yaatu na miir yi gàtt nañ. lëndëm na amul amul éclairage. Euh, tey munoo pour nga am securité bi doy pour ñu encercler stade bi nu mu toll. Mm-hmm. si yow boo ko defee promoteur bi doo si génn. ndax kon xaalis bi yëpp dañ koy fay dañ koy fay securité donc yooyu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne am na fii si commune bi tey bu làmb yi bëriwul loolu bokk na si amuñu place buñ tege làmb loolu moom en tant que dëkku làmb Joal Fadiouth dëkku làmb Joal Fadiouth en tant que ay dëkk boo xamante nii buñ nee na maa ngi dee fi la jóge doon roi des arènes Yaxya Diop jóge fi doon de des arènes ak champion yi nekk ci dëkk bi yëpp nga xamante ne nii tey ku ni ni Fadiouth balaa ngaa xalaat dara làmb ngay njëkk a xalaat ñuy am problème fu ñuy bëree ak li ñu làmb defal yëpp lan moo tax delloowuñ làmb cër bi. xam nga xam nga loolu yëpp dafa bokkoon si suñu combat. Mm-hmm. Euh, pour di fexe sax booy yi nga xam ne tey amaat envie làmb te yaa ngi gisaat ay am na ay pépinières yu ñëw boo yoo xam ne tey ñu ngi demoon na ba mbaru Joal bu génnee mm-hmm. pour mu jël drapeau problème loolu dund nañ ko fi demoon nañ ba ñun Joal bu ñu génnee amuñu yaakaar mbëru Joal jël mm-hmm. mais fan yi ñu ngi amaat yaakaar El Hadj Ndiaye Kiroog lambu ndangaan bi ak champion ya fa daje yëpp moom moo jël poids lourd ba mhm. Sana. Mhm. mu bu génnee mu ngi def ay preuve gis nga fitna bi ma lay wax si mbër yi dama ko gis si Ndiol Sana. Mhm. Ndiol bu Sana bu amoon yenn taay non ñun dinañ gën a sant yàlla. Ndiol bu Sana laa gis mu yor jikko mbër. waxuma nag pour clash beneen mbër. mais booy yi nañ yokk seen safara yi bu ñu duggee si géew. loolu si joué ama Ndiol Sana gars yi ko ëpp taay mais tey lii muy am si foraat si làmb ji fitam moo ko may. ak xadaram kon pour wala ne xadar dafa bokk si làmb mm-hmm. exemple boobu laa lay njool sana lu mu am xadaram moo ko may. moo tax man bu ma duggee si làmb gis ko fa. mais bii passé njool rek mooy tax ma yóbbu. dëgg la bi mu daanee booy booy booy jilaas bi kii bi mu daanee booy jilaas bi làmb làmb ko ma koy. Mm. dama taxaw yuuxu man njool rek moo may yuuxuloo instant yi booy zowaat bu may yuuxuloo si làmb. Mm. ñëpp la faral naa ñëpp nag. mais mooy def sit na bu tax ma yuuxu. foofu euh, ma dellu si ñun problème mu stade arène mooy suy problème euh, toog nañ si ak kilifa yi toogaat si ak kilifa yi njëkk nañ toog wax nañ ne daal entrepreneur bi moom moo moo leen livreegul arène bi mais arène bi ak nii mel buñ ñu ko joxoon ñun ñu defar ko di si tëgg làmb di defar di tëgg di defar di tëgg di defar ndax dëkk bu mel ni Joal Fadiouth mhm. amul arène bu mu tëggee làmb saison lëmm amul arène bu mu tëggee làmb loolu defet la te bu ñu doon wax làmb Joal làmb hmm. Joal Fadiouth da si bokk maanaam moo nekkoon te jamono bi bi bi bi boobu waxagul làmb Dakar sa doxagul ni hmm. boobu Joal Fadiouth ta nekkoon te fii si bayal bi hmm. boo jëlul làmb Joal Fadiouth ta pour yow nekkagoo mbër loolu fii la ñu fekk jamono bi ñoom Youssou Ndour di gaare fii cette place yi ñoom ongot yem fii làmb Joal Fadiouth moo doon ëpp xorom si xalam bi kon bu demee ba demee nii ba mu dee ñun ñu ñëw récupérer ko pour dundal ko mais autorités yi dañuy war a accompagner mais nag accompagnement boobu moo des nee nañu nag affaire administration la euh, nu mu tuddati entrepreneur bi tant que joxu leen stade bi ñoom mënuñ ko joxe. donc ñun tamit comme tey mënuñu dem ubbil ko suñu bopp. li ñu mën mooy toog xaar rek mais li ñu toog di xaar yëpp làmb jaa ngi dee. làmb jaa ngi mu ngi dellu ginnaaw ma waxaat leneen. Euh, làmb boo demee keroog ndangaan gis nga ni mu développé façon ni ku ne dugg fa façon oto bu ne dugg fa. day yokk koom-koom si si si ab dëkk. dëgg la loolu ma wax ko. Hmm. ndax lam boo xoolee ñun promoteurs yi ñun ñoo si gën a dee. di gën a ñun ñooy tëgg daanu utiwaat xaalis mbaa dem lebi xaalis ñëw tëgg daanu def ay jafe-jafe booy mbër yi am si seetaankat yi am si jaaykat yi am si borom restaurant yi am si borom hôtel yi am si borom auberge yi am si am si ñëpp am si. lamb moo mel noon moo yaatu ginnaaw. mbër yi jël yóbbu seen kër. ñun ñii kese ñun ñoo siy sonn mm-hmm. mais buñ siy sonni dañ ko bëgg a développer xam nga lu tax mm-hmm. xale yaa ngi mbëkki li tax état war a jàpp si lam sànq si suba dafa benn booy bu ñu téye licence am ma am benn euh, ku ma doon woo benn président au niveau départemental pour ñu jox ko licence bi mm-hmm. ñu nañu booy bi di ak lii la def ma ne leen booy bi booy yi bàyyi baal leen tax ñoo tooñ dëgg la mais booy bi munoon na def comme ay moromam te boo xoolee ñam doon àndal yëpp mbëkki nañ xoolal ñaata nit a dee. kenn xamul si géej gi kenn mënu ko lim sax. kenn xamul bi kenn mun a kenn mënu ko lim. dañoo jeex. dañoo jeex waa léegi nag gars yi état bi surtout état nga xam te bu ñu nee état tey ku nekkal fii état madame le maire. Mm. état si boppam dafa waroon dugal loxoom si làmb bu baax a baax a baax a baax ndax jeunes yi si yaakaar ñoo bëri te jeunes yooyu bu ñu gisatu seen bopp dañuy jël gaal yi kon nag bu ñu bañee jeunes yi jeunes yi jël gaal yi nañu dimbale jeunes yi nañ jàppale jeunes yi. làmb dafa dafa nekk loo xam ne facteur de développement làmb dafa yaatu ginnaaw kon nañu soob seen loo si làmb ji ñu aaree nii tamit lépp luy gàllankoor lamb ñoom ñu taxaw si. ah man daal lii mooy suma wax si affaire boobu. dëgg en tout cas du ñu jeexal tamit nag te daaw dañ gis jàpp jël nag yi bëri di jox booy yi bu paree jox leen ay talons yoo xamante ne nii daanaka njëgu nag bi lay doon ni la nga ñëw bëri si booy yi dugg ci koñ yi di jaay tige ticket di jaay seen i talons ba xaalis ñëw versé la ko nga mun leen a tëggal combat loolu ba mujjanteel gi affaire ba ma coow ñi ciy dégg dem nañ ci yoon ak demuñ ci yoon ak lan la lan moo indi jafe-jafe. waaw xam nga lu taxoon ma dugg si combat mm-hmm. dafa am ay boy yu ma seet si. nañu dañ la yaakaar si lamb ndax wax dëggum yàlla ku wax commune Joal Fadiouth xam ne yaa ngi fiy béy sa sa waar si làmb te ñun bëri nañ ba sonn mënuñu am mënuñu am nag mënuñu am xaalis ma ne ko léegi lan ngeen xalaat mu ne tëggal ñu ay combat ñu jaay ay billets ñoom ñu proposé ma ko booy yi bi ñu ficelee combat yi presque combat yi mot na vingt combat waaw vingt combat combat bu si ne ngaw dara jox ku nekk nag mu wax ne quarante quarante yi sa tegoon na ndax am na combat yoo xam na ñaari ñaari nag su ma juumul li ma jënd si nag mot na cinquante sept nag ko xam nga ñaata la si ay millions. cinquante sept nag te Euh, góoraan xëy na dina ma dégg yoo xam ne maak moom ñoo doon ànd di jëndi nag booy ñu def ay contrat booy ma jox leen ay talon booy yu néew ñoo si versé mu tal topp doole bi yëpp versé wuñu yaa ngi dégg. léegi nag lamb bi teg booy yooyu versé wuñ ku ne bëgg nag. te def naa la tout la tout def la tout ba ñoom ñëpp ku si ne. amelu ma la benn fifteen. Mmh, ndax ñoon lañ waxante woon billet yañ waxoon jaay ñiy jaayuñu ñiy jaay xaaj bi indi donc ma am si perte boo xam ne presque ay millions mhm. mais comme toujours ni ma koy waxee plaisir bi ma si am mooy man tax naa man jàpp mhm. tax naa ay booy am ay nag am na booy yoo xam bu dul woon jàpp duñu am ay nag comme ni ma koy waxe fra bi nga xam tey moo nekk champion mhm. tey nekk si arène bi di duy suma lamb la njëkk a jël nag wax na ko si interview yam sama lamb la njëkk a ñëw jël fa nag ko am confiance ndax gis nga mbër bu jëlee nag day am confiance kon loolu joué naa ko si làmb ba pare def ak coow coono bi ay xale tooñ ma la taxoon mu mujj si yoon am nga lan la woon. Mm-hmm. mosuma nit yóbbu si yoon nit si yoon bu leet ma yóbbu nit si yoon. te booy bi dafa ma fekk si géew gi poñe ma man kilifa la. Mm-hmm. ma wax wax mu poñe ma si digg géew gi ma ne ko poñe bi dina la coûter cher. ëpp ma doole. Mm-hmm. mun naa jëfalante yow mais du ma ko def. dinaa la jaajëf mag. ñu pare ma porte ko plainte ñu nag ko tey famille am yëpp ñoo juu ko fi ma baal ko ma ne leen li ma ko porté plainte pour ñu jubluwuma si pour ñu tëj. Mm-hmm. dama ko porté plainte pour ñu yar ko pour mu xam ne nit waawul fekk nit si biir déew di ko def yëfu sauvage. dëgg la loolu la woon mais ñoom dañ ma war a gërëm dañ ma war a sant ndax booy tuuti yoo xam ne mun nañ bëre cinq ans duñu am nag man maa tax ñoom ay nag. dëgg la ah, ñu ngi lay sant si loolu di la ci gërëm bu baax a baax a baax duñ jeexal nag te waxoo ñu sa programme lan baa ngi tëj te ba léegi dégg ko ñu jàpp. fan la jàpp jëm. waaw man moom li ma waxoon gars yi leer na. Mhm. nee naa leen bu ñu ubbee woon arène bi tey tey tey. Mhm. suba ma teg làmb. stade dafa métti. stade yombul. kenn ñemeetu ko. ndax ñun ñi fa teg yëpp xam nañ liñ si daj. Mhm. bu ñu ubbi woon arène bi tey. wallaay balaa semaine bi jeex. ma teg ma teg làmb. ndax moom la ñu bëgg. làmb lañ bëgg beneen bi mooy. loolu moom dama si waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy dundu làmb. Euh, ngeen baal ma si kàddu bi léeg-léeg du neex mais Joal Fadiouth da ngay jóg pour defar pour mu avancer mais fakastal ni dafa bëri xeex bi dafa bëri si loo xam ne boo waxee jaab Senghor tey am na benn femme loolu la ma doon seede mu ne jaab de ni nga gis amul amul temps pour pour amul temps si maam amul temps pour wax si nit aw ma jot si nit nag bu xewlee damay jël taa taayam de mais maam aw ma jot pour taxaw di wax si nit. dëgg la aw ma jot boobu. man su ma xëyee maa ngi xool naka laay def nag ñun bu fekkee ñu ngi ñefe loolu pour développer làmb mhm. ay nit toll fee da ngay gis koo xam ne sax daf lay li ma wax léegi rek séeréer mugul ku ko jiitu. Mhm. da ngay gis nit koo xam ne daf lay bañ te boo ko waxee xamul lum la bañ mbaa boo ko nee lum la def xamu ko daf la bañ rek ndax yaa ñu ngi dégg sa tur am na ñoo ñu bëgguñu borom tur amuñu dara waaye ñun suñu tur dafa dem. am na ñoo xam ne loolu daf leen di déranger mais daal li ñuy ñaan nit ñi mooy mhm. nit yàlla moo koy jox nit ñu jox nit yàlla mooy jox nit li ñuy ñaan nit ñi mooy eh, dama gis fii làmb yoo xam ne même bu ñu bu bu bu jàpp tëgg kese da ngay gis promoteur tëgg fi làmb ñoom Ismaïla Keeke lu tax ñu bàyyi làmb ñoom Ismaïla Diallo bii di wax ñemeetuñu ñoom Malick Ndour bu faaju ñemeetuñu te ñoo ay promoteur la ñu woon yoo xam dañ doon tëgg lamb Xadi Mbay ñemeetuñu ndax da ngay tëgg làmb benn Xadi Mbay day tëgg làmb nga gis ay nit toog seen kër ne duma ma seetaani comme ngoy bii bu tëggee. foo ne waa Joal bu dul woon waa Joal làmb côté bii du dox. commune de Fimela. Mhm. Ndangaan Diofior fu ne Palmarin waa Joal yee koy fees del del mais bu Joal tëggee ñu ne kan mooy teg ñu ne jaab ñu ne bu ñu dem pour lan ne jaab nañ yàqal jaab. loolu baaxul nañ yàq fekk ne yàqaluñu jaab xam nga ñan na ñuy rey ñuy dunde làmb ah. ndax jaab bu même bu bàyyi làmb mu gis yeneen action. kon gars yi ñoo ñuy ñaanaat. ñi nga xam ne làmb la ñuy dund bu làmb tegatee Joal Fadiouth mhm. nañu ñëw fees ko ñoom làmb ndubaab rek la ñuy ñëw fees mhm. waa Joal yi mhm. ndax ndubaab nag ndubaab nag dafa am caf mooy ndubaab neel mooy ndubaab non ndubaab mooy ndubaab voilà ndubaab boo yeexee sa doo toog <laughs> noonu la demee léegi nag boo yeexee doo toog boobu moo tax ku ne da ngay bëgg da ngay bëgg dëgg donc ñuy ñaanaat ñëpp daal ñi nga xam ne bëgg nañ làmb dëgg la euh, ñu bàyyi ñu ñu ñu yaatal xol yi te jàppale ñi fi nekk pour ñu développer dëgg la loolu am na solo macha allah wax dëgg yàlla jàpp yëkkati na fi kàddu yoo xamante ne nii ah kàddu yu ñaax la man moom mën nañ ci jàpp ñaar rek benn bi mi ngi woo population Joal mi nga xamante ne nii ñi ngi wàlliyaani kuy wàlliyaani nag day fekk sa dëkk moom moo tëgg moom moo tëggul voilà dundal leen li fi ne buñ paree door a daw ji lu ñuy daw ji ndax ñun Joal la ñu am amuñu leneen beneen bi bu ma ko déggee jàpp naa ni kon làmbi Joal xaw na tagga témbe tuuti ci loxo madame la maire kon madame njabootu làmb ñu ngi lay woo pour nga ubbil leen bii ñu bëre ñun amuñu leneen am nga ay élèves am nga ay footballeur mais da am ay mbër am ay amateur ñooñu ci njaboot gi lañ bokk da leen ci boole ñu ngi lay ñaan loolu ñun amateuru làmb yëpp di leen sant di leen gërëm nag di gërëm waa étoile jamono wax dëgg yàlla di leen wax ne nag kër gi mi ngi nii waaw toppal leen seeni champion fu ci waay man di nekk ci àdduna bi rek boo ñu wooyee dinañ la ñëw seet si defal la waxtaan bu yaatu li nga bëgg a développé yëpp nga développé ñu leen di sant di leen gërëm di kontaan ci groupe bi ni muy doxee di gërëm président wu étoile jamono nag di ko ñaanal yàlla mu fëgg boppam ba mu dellu si waat ci sago. amiin yaa rabbi amiin jërë ngeen jëf. merci beaucoup.